yaakaar naa ni tey conseil constitutionnel rempart de la démocratie et de l'état de droit bi nga xam ne moom lu pëpp sénégalais doon xaar ci moom joué na ko pleinement joué na ko pleinement parce que arrêté na tappale li ñu fi wax lépp ay tappale la tappale boo xam ni président Macky Sall PDS jàppale ko ci ñu ngi ci ne ko ngir di def un coup d'état depuis le 3 euh, février bi président defee son adresse à la nation retirer décret convocation bi man maa leen di woy une junte civile au pouvoir parce que lañ def coup d'état yëfu tappale mhm. le président de la république ak assemblée nationale nekkoon pour def coup d'état et heureusement mhm. que le pouvoir a arrêté le pouvoir li may neex ci mbir mi mooy justice dañ ko yàgg ngaañ mais bii yoon bu justice nërmeelool rek réew mi nërmeelu réew mi dugg ci guute goo xam ni génn ko ci dina jafe et dans cette décision de la cour suprême que j'ai salué parce que bu ñu defoon neneen ma ngañi leen lu tax parce que cour conséquence euh, euh, pardon dafa répété loo xam ne moom la waxoon en 2016. bi président bëggee ni mandat président de la république mënuñu koo yokk mënuñu koo wàññi. kon président Macky Sall ba muy def tappalee mi xamoon na ni mënta yokk mandam mënu ko wàññi ndax cour si cour euh, conseil constitutionnel daf cee prononcé woon ba pare. mu nekk une jurisprudence constante kon. bu ñuy tappale ci seen euh, commission d'enquête parlementaire boobu lu tax ma ni tappale la parce que le juge Cheikh Ndiaye déposé na plainte 48 heures avant ñuy wotee résolution bi mmh. procureur de la république naj plainte bi bañ ubbi information judiciaire pourquoi parce que le président Macky Sall voulait créer dafa bëggoon a créer une crise artificielle des institutions mooy tappale gi may wax tappale une crise artificielle naan conseil constitutionnel dafay jàppante ak assemblée ci loo xam ne tegu ko fen assemblée bu réuniree am na droit réunir bu jële seen résolution am na droit def résolution bu créer commission d' enquête am na droit créer commission d' enquête juge constitutionnel. Mm am nañu droit également. buñ leen porter plainte que ñu tuumaal. kenn ci que ñu parce que ñaari juge la ñu nommé ni dañ leen a ger mooy. Cheikh Ndiaye accusation bi nga xam ni Cheikh Ndiaye ak Cheikh Tidiane Koulibaly Koulibaly. muy mhm. accusation bi nga xam ni mooy l'accusation la plus infamante pour un juge. loo xam ne dalay topp topp sa njaboot topp sa giir. yow sa bàyyi dañ koy ger yow sa maam juge bu ñu doon ger la mhm. loolu dara ci àdduna dara ci àdduna nguur mhm. jarul nit di toroxalee noonu euh, nit boo xam ni liggéey na ba am 60 ans servir na état bi pendant plus de 45 ans mhm. dafa ñaaw d'accord mais Cheikh nguur nguur dafa jarul yenn yi maintenant nag ci ci décision conseil constitutionnel bi dama ciy féliciter le peuple sénégalais l'opposition ak la société civile parce que Macky Sall ba mu defee tappaleem yooyu ba ni dafay retirer le décret bi doon convoqué constitutionnel ñun dañoo taxaw ni ko élection day am par force le vingt cinq février insha allah société civile taxaw peuple sénégalais taxaw mais damay remercier également communauté internationale pour une fois Macky Sall a été esseulé dans la dans la scène internationale d'accord xam ni kii dafa jóg ngir tordre le cou à sa propre constitution parce que xam nga fi mu toroxalee tous les sénégalais ña ko ña ko doon interpellé dans la communauté internationale. Mhm. dañ ko naan respecte ta constitution. respecte ta constitution xam nga loolu toroxal la. mais Cheikh ci ab président de la. d'accord mais Cheikh gis ne yéen opposition bi mësul leen maanaam euh, félicité li nga xamante ne moo di. Euh, euh, li nga xamante ne mooy wàllum yoon parce que da ngeen fa leen toog da ne justice bi dafa tëddeewul njaaxaanaay dafa day day jël maanaam day day day day day am parti pris mais cette fois ci ñu gis ne euh, bi bi bi bi juge jël li nga xamante mooy décision bi presque opposition bi société civile ñëpp a jóg tàccu ne maanaam wax dëgg yàlla juge yi nii sauver ñi nga xamante ne moo di Sénégal est-ce que tamit loolu nekkul yéen yéen yéen bu bu baaxee rek bu bu def ànd ak yéen rek ngeen tàcc wax bu bu dee dañeen dañeen dañeen dañeen dañ am na décision yoo xamante ne seen défaveur la ngeen commencé critiquer est-ce que tamit loolu dafa bokk ci loo dafa dafa bokk ci loo xamante ne day dama ko léegi dama ne dama ne la la le conseil dafa dellu dans une jurisprudence constante mooy loo xam ne moom ci boppam moo ko waxoon te li ma neex ci décision bi considération 14 bi dafa répéter exactement la conseil constitutionnel waxoon en 2016 bi Macky Sall bëggee waay euh, wàññi mandat dans sa décision 1 16 1 C 2016 exactement la mu waxoon mu ci ca la delluwaat te loolu Macky xam na ko d'accord Macky Sall am na ay conseils juridiques yu yu ko xam li may ñaawluwaat encore mooy tey l'image du Sénégal mhm. bi nga xam ne président Macky Sall daf ko daf ko vilipender à travers le monde parce que nag quoi qu'on dit Sénégal dañoo xamoon ci réew moo xam ne dafa am un minimum de démocratie bu ñuy respecte des droit de l'homme bu ñuy respecte mais ñu gis 2012 ba suñu jonni tey mhm. Macky Sall dafay salfaañe un régime de terreur un régime d'emprisonnement un régime de torxal Euh, doomu réew mi un régime boo xam ni fu mu toll mi ngi nekk ci di. d'accord ci di ci di tëj ci di ci ci di ñu toroxal. merci beaucoup ba tey. merci beaucoup mu am un pouvoir. Mhm. qui a eu. Mhm. qui a usé de ses propres pouvoirs pour arrêter le pouvoir moo tax ñu. merci beaucoup merci beaucoup.